li nga xamante ni moom mooy le bi ñu fi développé war ko waxtaanee également muy euh, le rôle de euh, pour donc lutter contre l'extrémisme naka nga jàngate thème boobu ak sa présence tey ak coalition Yewwi Askan Wi euh, naka nga ko gisee. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. bokk ci njaboot gi parce que lii tey Dakar moo aye te yàgg na fi te dañ ñëw tey ñëw sàkku si ay ñaan. ñëw déglu si tamit euh, ay conseils te éducation bi bu ngeen di wax mu nekk lu am solo mu nekk tamit euh, lu ngeen xam ne ni dañ ci euh, fas yéene def suñu kenn kattan parce que ku bëgg a tabax dëkk dangay góor góorlu ba investir ci doomu aadama ñu fay yeewu. kon ñu ngi daal sant yàlla tey ànd fi ak toute la coalition Yewwi Askan Wi. Euh, coalition bi nag ko jiitee mooy suñu mag di suñu kilifa di le président Khalifa Ababacar Sall euh, lii moom du gulet lii mooy suñu euh, cër lii mooy suñu wareef kon nag sant yàlla bu baax a baax ñu ànd tey avec la plupart des maires de Dakar et di ndokkale tamit communauté layène bi ci bés bi di leen di ñaanal tamit yàlla na leen yàlla aar. te yàlla na yàlla nangu ñaan ñu ñu fi euh, formuler yëpp pour euh, un Dakar de paix et un Sénégal de paix. jërëjëf cohésion euh, sociale cohésion nationale nga aussi ñëw fekk fi communauté Layène également mu doon aussi lu symbolique. naa ci kër gi laa bokk. waaw ci kër gi la bokk. te am na sañ-sañ wax te amul kenn ku ci ku may weddi. te ñu may dégg xam nañ fi may waxee fa laa yem ci wax ci jërë ngeen jëf